Tivaouane namoon nañ la. maa leen raw. mais Abdoulaye est-ce que xam nga ne waa Tivaouane ñàkk gis giñ la ñàkk gis barki démb ci midinu Amadou Ba bi ñëppay laajte fan Abdoulaye Ndiangal gu nekk. waaw d'abord dañuy nuyu ñëpp di ci des nuyu sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général di Tidiane di ko ñaanal yàlla guddal fan ko wér di njab di ziar njabootu ma yëpp di ndokkeel ñëpp si weer bi si weeru Ramadan bi Ramadan Karim Ramadan Mubarak Euh, di baalu ak ñëpp di baal ñëpp ak di ñaan yàlla aussi lépp si nit def rek si jaamu yàlla ak su lu baax yàlla na ko yàlla ful yàlla dafa dogal dama tukki woon def naa 15 jours si àll bi demoon umra ji ñibbi si dimanche fajar laa bi ma ñëwee après lañ ma wax ni dafa am réunion bu ñu paree bu ñu prévoir def le lundi malheureusement mënu ma woon ñëw parce que dama ñëw ko voyage sonn donc mardi aussi bi ñu waxee ni PM dafay ñëw dafa c'était prévu que dafay ñëw fanaan mais di woon affaire yu meeting beneen bi aussi man comme j'ai l'habitude de dire man Macky Sall laa gëm Macky Sall lay àndal wax naa ko du benn yoon du ñaar yoon ku Macky Sall choisir kooku lay jàpp mais nit bu fekkee da nga bokk ci benn coalition nga toog gis ni affaire yi deme campagne bi commencé gaa yi wàcculoo terrain am ñu am ñu wàccul comme na wutukki woon nag yàgg naa si àll bi damay taxaw xam ba xam fan laa jëm loolu rek moo waral lool. mais Abdoulaye li ñu jaaxal mooy avant ngay tukki président Macky Sall joxe woon na ndigal ni pour ñu loolu leer na parce man engagé naa si si boobu wax taxaw wax ni man choix ma Sall sama choix donc loolu génn ma si ba tey donc comme nu ma wax yàlla dafa dogal élection yi dañ ko prévoir le février ñu reporté ko man bi ñuy jàppaat date 24 bi fekk ma Sénégal fekk ma tukki ma gis campagne bi commencé mais campagne bi xëyul dara neex bon ma ne naa taxaw xool ma xam nan may waral campagne bi. war a bëri leer sa bopp. waaw campagne bi ba campagne bi war a war a xëy neex léegi nag yàlla dogal na dem président wax na moo tax ñu wàcc terrain bi wàcc wax waxtaan ak militant yi incha allah fas yéene campagne. kon affaire bi xëy na neex. jàppale candidat bi fas yàlla kon ñu ngi lay xaar ci terrain waaw xam naa day demee rek maa ngi ci ñu ngi lay sant bu baax di merci est-ce que xam nga ni waa Tivaouane la maa leen raw xam nga ni Tivaouane gépp dañoo jaaxle dem bi fi Amadou Ba uh-huh. def fa pôle bu am solo muy le pôle jeunesse féminine au niveau national kon il fallait que ñu dem parti bu nekk responsable bu nekk ñu xool nan la ñuy coordonné ak yow ba à la base nga mën a def le travail qu'il moom xam na ci li ma nekkoon foogoon amul. nan la nit ñi foogoon nit ñi dañu foogoon ni Macky président Macky Sall moo leen téye yow Diagne Mbengue ak ak Abdoulaye benn kilifa lañ am ci benn muy le président Macky Sall moo ñu joxoon le candidat Amadou Ba ku ma xam-xam ni socialiste la benn kilifa laa am parti socialiste muy la présidente Aminata Mbengue Ndiaye mu joxoon ñu Amadou Ba ñu cëral ma cër bu rëy foog naa bu ñëpp reculé bu ñëpp dawee sama ngor mayuma may reculé wala may daw waaye bu liggéey taxawee da ngay xool bi nga xam ne moo gën a jàmp nga waaye man ñii sama kilifa muy le président Macky muy le candidat Amadou muy la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye xam nañ ci li ma nekk. mais dégg naa ñu ne président waxaan na pour ñëpp àndandoo en unanimité jàppale ki nga xamante ne mooy Amadou Ba. président loolu la mës a wax depuis le début bi muy renoncer candidature am di choisir Amadou parti APR investir ko tous les alliés muy parti socialiste muy AFP investir ko on savait que le candidat ko accompagner encourager la coalition Benno Bokk Yaakaar mais ñun ñëpp xamoon nañ le candidat c'était Amadou Ba. mais tekkaaral gi moo ñu jaaxal quoi li waraloon par exemple euh, campagne yi commencé boobu ba léegi dégg na Benno Bokk Yaakaar benn yoon mu la xam nga parti coalition boo xam ne def nga deux cent partis politiques dajalewaat ñëpp pour amaat un nouveau départ du yomb surtout coalition boo xam ne dafa historique def na douze ans au pouvoir coalition yi fi ma a jaar yëpp seen cours mandat la ñuy séparé wu ak seen par parti au pouvoir wala seen alliés yi nga xam ne seqoon nañ ko tey bu ñu résister pendant douze ans yor réew mi ak le président Macky Sall tey président Macky Sall di dem transition boobu yombul déjà le candidat am na liggéey bu am solo bu ñu fa war a def waaye dajalewaat plus de deux cent partis politiques ñu xàccandoo dóorandoo yombul kon nañ xam ne rek liggéey boo xam ne la saa demande du temps et jàpp naa ne ñu ngi ci waaye li ëpp solo mooy que li ngànk Benno Bokk Yaakaar muy parti yi gën a mag décidé nañ ànd ànd ak le candidat Amadou Ba ku gis la secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye ni mu taxawee keroog ci directoire campagne bi man ma nekk fa moom mu nekk fa Aïda Sow Diawara nekk fa Abdoulaye Wilane nekk fa pratiquement tous les responsables du parti socialiste nekk fa kon xam nañu le temps est donné depuis maintenant nag dajale ñëpp yemuñu gis-gis ñëpp ñu xalaat ñëpp yemuñu doxalin ñëpp yemuñu ay conviction ak ay engagement boo njabootee nag lu yaatu da ngay fexe ba dajale ñëpp woowaat ñëpp xëccaat ñëpp li am solo benn objectif la mooy fal le candidat Amadou Ba fexe ba au premier tour mu nekk le futur président de la République du Sénégal loolu na xel la laaj ak ndam bu ñu ko amee rek jàpp naa ne yàlla ñu may ndam booloo daal moo gën tasaaroo te lu ñu mën dinañ def ko dajale li nga xam ne dénk nañ ñu ko muy le pôle jeunesse féminine de Benno Bokk Yaakaar. ñu ngi lay sant leen maa ngi leen di sant di leen gërëm.